bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala ashraf alambiyai wa imaami almursalin sayidina wa nabiyina muhammad wa ala alihi wa saxbihi wa xadimihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki jullit yi ginnaaw bu nu sante yàlla sunu boroom julli ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ci bis bu tedd bi di bisub àjjuma di ñetti fan ci weeru tamxarit ci at mu yees mii di atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom di leen ndokkeel ci àjjuma ji di leen ndokkeel tam ci at mu yees mi di ñaan yàlla mu def ko atum jàmm atum xéewal atum barke te nu fekke ko déwén fekke ko at yu baree baree baree bari bis bii tam di ñetti fan ci weeru tam xarit ñu ciy fàttaliku kenn ci sunuy kilifa di jàmbaari lislaam di ko xam ne pàkk bi miin na ko lool muy jumaa ji ndax jiite na ko ñaari fukki at ak lu topp taxaw ci taxawaay bu rëy doonoon koo xam ne mat na sëkk kilifa doonoon koo xam ne mat na sëkk royukaay doonoon koo xam ne dafa tënku woon ci sunna ba ñépp xamee ko tënku ci sunna doonoon koo xam ne tam listiqaama rek moo doon doxinam moo doon jëfiinam moo doon waxinam doonoon koo xam ne itam euh, dafa soppoon jullit yépp ndax wa ahbibil mu'mina lil imaani doonoon koo xam ne itam dafa xam ak bokk di ko lijjanti di ko faram fàcce ci jamono joo xam ne euh, ak bokk tumuranke na doonoon koo xam ne itam daraan dox ak bokk ci jamono joo xam ne dox bokk tumuranke na doonoon koo xam ne daraan dimbalee ci jamono joo xam ne dimbalee tumuranke na doonoon ku rafetub xol ku rafet njort koo xam ne jàkk ji muy jullee ku mu ràññee ca sàppi su jëkk ja kenn mënutu ko wax ab safaan ci yow ba mu jàpp ko doonoon koo xam ne xolam bu rafet ba mbokk ma seeral na ko ko muy sëriñ Abdul Ahad wax na ne sëriñ Abdul Qadir lépp lu mu wax jërta jeex jërta gëstu ba xam wax ji lu mu wundu ndax lam wax rek la ci jublu kooku la ñuy fàttaliku tey muy koo xam ne bu ñuy fàttaliku bisam euh, jàngat doxiinam ak i jikkoom ak i jaar-jaaram loolu lañ ciy jublu ak ñaanal ko ak sàkku ñaan ci barkeem waaye nag jim ko roy ndax sëriñ Saalihu daana wax ne euh, roy ku baax li tax mu baax soo munta mel ni moom it da ngay raw say moroom kon yàlla na ko sunu borom gën a dolli ay xéewal fa mu nekk dolli koy leer te dolli barke ginnaawam bu loolu jàllee itam ñuy ndokkeel mboolem ñi demoon penku joox jooxi ji woon seen farata muy ponkub lislaam boo xam ne ku yàlla xéewale ba nga joxe ko mel na ne say ponk mat na sëkk kon ña demoon ba delsi ña fa des yàlla na leen yàlla tëbb ca xéewalam ya waaye ñi delsi yàlla na leen yàlla nangul seeni jaamu ak seeni ñaan ñi demagul tam te bëgg a dem yàlla na leen yàlla defal xéewal ba ñu dem bu ñu ndokkee la ñi demoon màkk nag dañ ciy beral loxo ñi nga xam ne ndigalul sëriñ bi te la ñu demee woon ñooñu it dañ leen di beral seenu ziar ak seen ndokkeel waaye ca biir ñooño nag dañ ciy beral loxo euh, ndokkeel ak ziar sunu mbokki daar yi nga xam ne fii ma toog ñoo fi bokk di fi toog di fi jooxe liggéey bii nuy liggéey te ñu demoon ñoom itam ci ndigalul sëriñ bi di leen ca ndokkeel ca seeni ñaan ak seeni jàmm waaye di ci ndokkeel sëriñ bi di di ci sant sëriñ bi yàlla na leen yàlla nangul ñoom ñëpp te nu yàgg koo fekke tey nag ñu bëgg a waxtaanee loo xam ne dañoo nekk ci jamonoom atum lislaam bu teroo xel yépp war naa dem ci asaka ndax atum lislaam mu teru ci la ñuy génne asaka asaka duñu ko génne ci weeru tubaab waaye weeru lislaam ci lañ koy génne la ca gën nag mooy su at mi tàmbalee ñi koy génne bàyyi ci xel asaka nag doon loo xam ne day ponk bu lislaam bu diis gann ndax alquran da ko tudd fu ne yàlla wax na ne wa aqimu salaata wa aatu zakata warkau maa rakiin kon tudd na ko fu ne bu ñu demee ci xadis tam moo xam muy xadisu jibril moo xam muy euh, buniyal islaamu ala xamsin wala xadisu muaz ibnu jabal ak yeneen ahadis moom itam da ngay fekk ne yonante bi alayhi salaatu wasalaam ma ngi koy tudd di ca ñaax jullit ñi di leen ca soññ jullit ñëpp tam ci àdduna maase nañ ci ne nangu ne asaka ponk lislaam la moo tax téere euh, ku baax ki nga xam ne euh, nun ñi ñëpp ba ñuy dal jàng daanaka mooy téere bi ñuy jëkk jàng muy tasawudu sixaar ma ngi cay teel xamal ndaw ñi ne leen azaka ponkub lislaam la mu ni islaamukum ya ayyuha sigaaru liman lahu dunya wa tilka daaru dikrul ilahi wa salaatun wa siyaam xajjun zakatun kon juróomi ponk yépp la tudd ne na kullu ji xatman yuraam kon nag aj ponkub lislaam la kon képp koo xam ne danga weddi ne Euh, asaka ponk bu lislaam la képp ko weddi ne ponk bu lislaam la da génn ci lislaam asaka nag nit ki koy joxe bu mu defee ne euh, bu ko joxee dafa jomba ñaaw moo tax mu joxe asaka déedéet asaka jomba ñaaw taxul nga di ko joxe waaye day santaane bi yàlla boo xam ne da ca gàcc ab yar gàcc ca ab yar ne soo ko defee ma fay la waaye soo ko deful nag ma digaale ko ak yow yàlla mi ko santaane nag dafa bëgg saafara yu bare bare baree bari la ci jëkk moo di buñ dee joxe asaka nañ ko war a joxe ñi amul liggéey ci askan wi dañuy daldi am lu ñu jàpp bu ñu ko joxee nañu ko war a joxe ñi seen loxo jotul seen ginnaaw dañuy am lu ñu jàpp bu ñu ko joxee nañu ko war a joxe jirim yi ak baayo yi dañuy am lu ñu jàpp bu ñu ko joxee nañu ko war a joxe ñi am laago am gàllankoor ba mënuñoo xëy ak a gont dañuy am lu ñu jàpp kon daal asaka bu ñu ko joxee nañu ko war a joxe dana saafara jàngoro yu bare bare yoo xam ne société bi day jànkonte ak moom asaka nag di mbir moo xam ne yàlla mi ko santaane bu fekkoonte ne santaane wu santaane wu ko itam yow jullit bi yore sam xel mu rafet képp képp sam xel war na laa may nga ne mankat kat lii ma yor waruma ci goor man dong lii ma yor war naa cee bàyyi xel ñi nga xam ne maa leen tane kon gor soo xam ne yaramam dana daw bu fekkonte ne yàlla santaanewul joxe asaka moom ci xalaatam rek war naa xalaat ne lii ma yor day war naa ci geesu ñi ma tane ndax yàlla yemalewul yàlla moo ne wallahu faddala baadakum ala baadin fi rizq asaka bu fekkonte ne yàlla santaane wu ko itam yow mi yàlla may mane la gan war nga xam ne joxe asaka bokk na ci meloy jullit yi jullit yi nga xam ne seen pas-pas dafa dëgër joxe asaka bokk na ci seeni melo nga ne suma ma sañoon kat bokk ca ñooña yàlla neen alif laam miim tilka ayatul kitaabil hakim hudan wa bushra lil muhsinin alladina yuqimuuna alsalata wa yutuuna alzaka wa hum bil axirati hum yuqinuun kon yàlla ñi muy tagg ndax dañuy joxe julli dañuy joxe asaka kon ci sam xel rek war ngaa xalaat ne man kat su ma sañoon bokk ca ñii doo toog ba yàlla di ca gàll ab yar yow mi koy joxe tam soo amee xel mu rafet rek war ngaa xalaat ne yàlla ni muy tëkkoo ñi ko gëmul ba tax du ñu joxe azaka ndax ku gëmul yàlla du joxe azaka tëkku ba mu leen di tëkku nag war ngaa xalaat ci sam xel rek ne man de war naa koo joxe ndax ma bañ a bokk ca tëkku bii yàlla nee na fa waylun lil mushrikin na laa yu'tuuna zakata wa hum bil axirati hum kafirun أكبر الله أكبر أشهد أن لا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 محمد رسول حي على الفلاح xam ni gëmuñu yàlla azaka nag war na ci mbay su matee nisaab te xam ngeen nawet mi ngi door a tàmbali kon baykat yi moom taxul ñuy wax kon ñi nga xam ne dañuy bay nawet baa ngi door a tàmbali ñu ngi ñaan sunu borom yàlla na wàcce ndoxum jàmm ak ndoxum xéewal mu baawante bañ a lor kenn bañ a yàqal kenn lépp ne gàññ ndax su lépp ne gàññ rek nit ñi am jàmm te nit ñi bu ñu amee jàmm réew mi am jàmm kon ki nga xam ne day bay soo amee nisaab war na ko waaye ki nga xam ne euh, day sàmm moom itam su amee nisaab war na ko waaye ki nga xam ne tam day yaxantu di jaayee ka jënd wala muy yëngatu ak lu mu mën a yëngatu rek denc nisaab ren ba déwén na xam ne waxtu yooyu lañ war a génne asaka nisaab nag ci weer wi ñu nekk juillet bi ñu nekk nisaabu asaka mooy ñetti million yu tegal fanweeri junni ak benn ak ñaar fukki dërëm ak ñetti million ak fanweeri junni ak benn ak ñaar fukki dërëm ak ñetti dërëm mooy nisaabu kuy génn asaka ci weer wi ñu toll xam ngeen ne nisaab nag day yéeg ak a wàcc ndax dafa aju ci or te or day yéeg ak a wàcc moo tax weer wu nekk euh, dañu koy seet ba xam ne weer wii nisaab bi mooy nangam soo ko génnee nag ñañ ko war a jox moom ñëpp xam nañu ko ku am ku am nag nisaab denc ko ren ba déwén wala nga yaxantu yore marchandise ak xaalis di liggéey ren ba déwén asaka war ca soo ko joxewul nag. sunu borom da ca gàcc ab yar fii ci àdduna gàcc ca ab yar ca àllaaxira yarub àdduna bi yonent bi nee na sallallahu alayhi nit ñi bu ñu gàntoo asaka sunu borom nattoo leen bekkoor nee na bekkoor boobee day bu lu woon ak jur gi sunu borom dootu taw ndax jéppi gum leen jéppi kon loola yar la boo xam ne ci àdduna la waxaat na ne képp ku joxe asaka ngir yàlla yàlla fay la waaye képp ku gàntu Euh, dañu koy foqar ci ba noppi nag teg la ay daan daan ya mooy dañuy xaaj sa alal ci digg ba def ko ci baytul maal loolu tam yaru àdduna la bokk na tam ci yari àdduna mooy mbooloo mu gàntu ne dootuñu joxe asaka kilifa ak lislaam gi dafa war a wax santaane ne nañu dal ci seen kaw ndax Abu Bakrin as-Siddiq yàlla na ko yàlla dolli xéewal ba amee mbooloo mu gàntu ne dootuñu joxe asaka dafa xeex ak ñoom xeex yu rëy yooye nga xam ne kenn du ko fàtte waxuma la nag yar ba nga xam ne sun borom da ko ca gàll ca àllaaxira su ëllëgee kon nag képp koo xam ne daal yaa ngi daan sa doole ba sunu borom mane la kan na nga xam ne sunu boroom lii mu la laaj euh, jëriñoowu ko waaye say bokki bopp ak say dëkkaande ay say dëkkandoo say dëkkaale ak say bokki jullit ñoom la bëgg nga joxal jox leen ko ngir jëmmi yàlla soo ko defee yàlla fay la joxe asaka nag baax na ndax kër kër ji nga xam ne moom ngay kër kër yi di ñaq danga cay boole nag ñuqi ñaq ak ñuqi nag mooy melow jullit rawatina nag taalibe soo ko defee yàlla sàmmal la sa alal soo ko defee yàlla barkeel la sa alal te fu ngeen dégg nag alal ju laatu alal ju sànku yonent bi saa nee na dafa am ñu gàntu ne duñ gàntu bañ koo joxe su ko defee sunu borom jéppi leen indi nag musiba mu dal ci seen alal te ñax gu waw dana ñax gu ñax gu waw dana lakkaale ñax gu tooy moo tax léeg nga dégg ay alal yu bari yu yàqu yoo xam ne ña ca yàqule am na ñoo xam ne seen yow néew ca waaye ñax gu waw mooy ña mooy mooy mooy lakkaale ñax gu tooy su ko defee nga jox ko ña ko yelloo ndax ñu tala jaamu yàlla mucc ak mos mooy tax nit ki tala jaamu yàlla soo mos dara ba noppi am jàmm mucc day day tax nga tala jaamu yàlla waaye soo muccu mosoo doo ko tal fal ya'budu rabba hadal bayt alladi at'amahum min ju'in mooy mos wa amanohum xaw xawfin mooy mucc lool nag Euh, fexe ba nit ñi a jaamu yàlla tam jaar ci sa loxo loola tuyaabam kenn xamul nu mu toll euh, kon yàlla nu yàlla jox lu nuy joxe ndax loxo bi féete kaw moo gën fuuf loxo bi féete suuf te itam dana saafara jàngoro yu baree bari ci askan wi da gis koo xam ne ab surga lay doon jàpp ni giir dundam surga la war a doon te asaka dara tax na mu dem ba doon njaati gi wala ko yàlwaan defe ne giirug dundam da yàlwaan mu dem ba bàyyi ko ndax asaka wala amul liggéey lu mu jàpp defe na giirug dundam noonu lay mel asaka tax mu am lu mu jàpp wala ak bokk gu yàqu ndax euh, ñàkk dimbalante asaka tax mu defaru wala ku bëgg samp kër te munu ko alal mu mën a samp kër wala ku bëgg sax néeg bu mu dëkk kër gu mu dëkk munu koo am asaka tax mu mën koo am li muy saafara daal kenn xamul nu mu toll kon yàlla na ko yàlla jàppandal te su ko jàppandalee yàlla nañu xiir ci ñu di ko joxe ña nga xam ni ñoo lañ ko war a jox kon nag dañuy dikk dikk nag tënk nag xutba bi nga xam ne imaam moom lay war a wax ci kanam ginnaaw bi mu santee yàlla julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne na ngeen xam ne at mu yees tàbbi na na ngeen ko gàttandu teral ko ndax gan ko ko am da nga koy teral nu ñu koy terale mooy nañu fexe ba lu ñu bëggoon yonant bi ñu fexe ba gën koo bëgg bëgg yonent bi nag di su ko wax ci làmmiñ rek waaye mooy topp yoonam wi nga xam ne moom la xàll muy nga boole imaan ak islaam ak ihsaan nee na nañu ragal yàlla te te nañu bari nañu fonk topp yàlla rawatina weer wii jëkk ci at mi ndax ku la xasaayu ci weer wi jëkk ci at mi sunu borom mën na laa taw féexe ba nga fekkee at ma mujj te su boobaa ni ko tàmbalee ci topp yàlla noon nga koy jeexale ci topp yàlla mu wax ne nañu woor juróom-ñeenteelu fan ci tam xarit te woor tam fukkeel ba ndax saa sala moo waxoon ne ba mu wooree fukkeel ba dana su ma fi yàlla eh, bàyyee ba déwén de danaa woor juróom-ñeenteel ba kon nag nañ ko def ngir roy yónni bi saa sallallahu alayhi wa sallam nee itam nañu nañu nañu nañu yaatal njaboot gi ci fukkeel ba mooy nañu nañu soppi cin ci fukkeel ba fexe ba njaboot gi békk te génne azaka. Euh, ci ci ci ci at mu yees mi at mu yees bu tàmbalee na ñëpp bàyyi xel asaka te gën a wormaal àqi sunu borom mooy jëfee li mu digle te bàyyi la mu tere te jéggalu yàlla ndax yàlla ku ko jéggal say bàkkaar lu mu rëy rëy rëy yàlla xajoo na ko nee na nañu ragal yàlla tam dëgg-dëgg ragal yàlla képp ku ko def da nga tàbbi àjjana ci jàmm ak salaan nee na ku tawat te bëgg bëgg a wér del sàkk sarax ku am alal te bëgg mu ñoŋ del génn asaka waaye ku nekk ci nattu ak i tolof tolof te bëgg caa génn del dëkk yàlla say loxo di ñaan yàlla bu ñu demee ci xutbam ñaareel bi dafa wax ne ginnaaw ba mu sante yàlla julli ci yoon bi saa salaam dafa wax ne yéen jaami yàlla yi na ngeen xam ne àdduna du kër kon bu leen def àdduna kër su ngeen def deful àdduna kër su ëllëgee ku texe ngeen texe kon yàlla nu yàlla boole ca way texe ya mu ne bu leen defee ne tam wërsëg rek da ngeen di dang-dangi di ko wut guddeeg bëccëg teg fee yàlla te yàlla mooy joxe wërsëg yàlla miy joxe wërsëg kon kon dangay wut yàlla soo amee yàlla rek am nga am nga am nga am nga wërsëg mu ne waat naa ci yàlla ne ni ñu baree baree bare dañuy toroxal seen bopp ci wut àdduna di def loo wërta def di wax loo wërta wax di dugg ci loo wërta dugg ngir wut alali àdduna nee na nag te li war a am mooy topp nag dëgg rek su alquran waxee nga wax la nga def la alquran wax te xam ne yàlla daal lépp ci yàlla la bàyyi ko wa ma asaabakum min musibatin bii ma kasabat aydikum wa yafu an kasir népp na lépp loo xam ne dafa dal ci suñu kaw ci ab safaan nañu xam ne ñoo ko teg suñu bopp ñoo ko fàggu te yàlla sax da dul jaam ñi waaye bu doon toppanteek jaam ñi kon dara du ko jar mu ne kon inna lillahi wa inna ilayhi rajiun nee na ñuy baral di wax laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah di ko zikkar di ko tudd ndax xam ngeen ne képp koo xam ne moo mujj ci saw làmmiñ booy faatu da texe moo tax nit bu nekkee ci waajtaay da ne ci wetam di wax laa ilaha illallah doo ko doo ko wax nag ne ko wax laa ilaha illallah ndax man nga ko wax mu gànt waaye danga koy wax rek ci wetam su ko defee xelam mën na caa dem mu di ko wax ba mu mujj ci aw làmmiñam moo tax mu ne kon day leen wax laa ilaha illallah lu baree baree bare di ko sax ñi nga xam ne dañuy seeni seeni bokk te ne ca waajtaay ndax kat laa ilaha illallah ku ko mën a wax tey na ko wax tey ndax bis mën naa ñëw boo xam ne doo ko mën a wax mu ne kon yàlla dunu yàlla jéggal te jéggal mboolem way gëm yi ñi ngi ñaanal yàlla sunu kilifa gu mag yi na ci sunu kanam yàlla na ko yàlla gën a sàmm gën koo aar gën koo musal gën koo kàttanal ba li mu yéene ci lislaam mu def ci lu kawe njortam def ci lu kawe sunu njort te lépp lu mu sumb nag yàlla na lu ko ànd ak moom wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.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

العام عاما مجددا متجددا الحمد لله مجدد الأعوام عاما بعد عام الذي افتتح بأفضل الأشهر شهر المحرم الحرام أحمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول عبده ورسوله سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه مدى الدهور والأيام أما بعد فيا qawmu qad daxala calaykum haada alcaam fatalaqawhu biltarxibi walikraam wa taxababuu fiihi ilaa nabiyikum wattabicuuhu fi ma sharaca lakum من الإيمان والإسلام والأحكام واتقوا الله وأكثروا من طاعته في أول هذا الشهر يحسن إليكم الختام يحسن إليكم في الختام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 tadxulul jannata bi salaam wa fi lxadiisi daawu mardaakum bisadaqa wa xassinu amwaalakum bizakaati wastaqbilul balaa bidduaai wattadarru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 tanazzahu an xubbi dunya kay tafuuzu maa alfaisiin wala tahtammu bi arzaaqikum fa inna allaha huwa arrazaaqu dul quwati almatin fa wallahi laqad zallat nufuusukum fi talabi dunya wasaarat anfusukum tartaaxu inda samaahi alxaqi walkitaabi almubiin wamaa asaabakum min musiibatin bimaa kasabat aydiikum wa yacfu an kahiir fa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun wa bilxadisi aksiru min qawli laa ilaha illa allahu qabla an yuxaala baynakum wa baynaha wa laqinuuha mawtaakum يغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين آمين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 سمع الله لمن حبنا ولقد الله أكبر الله أكبر الله أكبر akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim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 الله لمن حمده حبنا ربح الله أكبر الله allahu akbar allah assalaamu aleykum